li ma bëgg mooy euh, man ak sama équipe ak sénégalais yëpp ñu ubbi seen bët ñu xool parce que dañu sonn ci ñu ñuy nax dañu sonn ci ñuy jël sunu xaalis yi di ko jox seen doom yi ñuy jàngi dañu sonn ci seen doom yi nekk ci kër gi sunu càmmeñ yeeg sunu yaay yi nekk ci mbedd mi dama ni suñu suñuy joxante ñoom seeni million ñun citoyens yi duñ ko xam mais bu desee pour ñu rayante dañuy def arme bés bu yàlla sàkk dañuy woo fii ci monument sunu yaay yi sunu càmmiñ yi sunu mag yi genn wàll gi nekk cent mètres gépp affaire mars yi ci lañu bokk te kenn du leen fa génne seen yaay yi toog ci territoire yi duñu leen mën a gis loolu lañu bëgg mu arrêté te ñu dimbale ñu te gis naa que ni ndax man waxuma pour am dara bugguma dara maa nga sama dëkk Amérique laay dund vingt six ans léegi vacances laa fii ñëw ndax fii sama réew fii laa bëgg bu ma sañoon fii laay dëkk mais toujours dañuy exploité te dañoo war a yeewu nag loolu sax moo ma gën a indi fii dañu war a yeewu ñu ubbi suñu bët yi xam ni dañ ñuy nax dañ ñuy nax surtout opposition bi dañ ñuy Bartali bi bu fekkee yaa ngi may dégg dama koy wax olof ba pare arrêteel Bartali bi dafay disrespect fuul joxuñu benn éducation boo xamante ne ni ñun mën nañu ko dégg mbaanu gis ko Jean jaas Dias moo fi njëkk ba doomam waree jàngi daf ko jaarale nii ci avion yóbbu ko Amérique mu jàng ba doon citizen bi ma doon Bartali bu lu ko neex la ñuy wax sénégalais yi lay waxal te dañoo sonn ci Bartali bi jas nega you know what I want you stop it we don't believe you we don't believe Jean Paul Diaz we been there before the time he was in US grade school, we was here with your dad. We die for you, we need you to stop Bartleby. ñun gëmuñu la ñun believe ñu la ñun trosuñu la parce que sa bopp nga fi toogal dama bëgg sénégalais ñu wax ma Jean Paul Diaz ba fi nekkee ci soixante ba léegi lan la fi def dara